dañuy sant yàlla ndaxte mobilisation bi ni ñu gis dal na suñu xel te loolu tamit day wane ne vraiment campagne bi def nañ ko si nu mu waree te l'occasion pour man aussi ma remercier ñaari candidats yi nga xam ne wax dëgg yàlla dañuy sant di gërëm di remercier président de la république si nu mu leen tànnee loolu dafa nekk loo xam ne ñëpp d'accord nañ si ne ñoom ñaar mérité nañ ko moo tax ñun ñëpp ñu jóg mobiliser wu maa ngi remercier aussi di gërëm responsable yi nga xam ne yëpp jël nañu affaire bi en charge y compris Modou Ndiaye ma bi nga xam ne ni ñëpp wax nañ si nu si taxawee loolu yaakaar naa ne dafa nekk li nga xam ne dina dal suñ xel et luñ fi gis nii am nañ yaakaar ne taux de participation bi dina baax comme nu ko monsieur le maire Malick waxee léegi et que incha allah ñëpp dinañ xam ne Kaolack benn Bokk Yaakaar moo kii et yaakaar naa ne remontada boobu ñu commencé moom la ñu nar a yeggali incha allah ba si échéance si ñu jëm ñëpp xam ne Kaolack dellu si na si loxo Benno Bokk Yaakaar. ñu ngi commencé par di sant le président Macky Sall euh, bi nga xam ne moom ma investir ci élection au conseil yi nga xam ne mi ngi am le 4 septembre 2022. ma ànd ceeg comme aw ma ndaw saw titulaire ànd seeg adjointe au maire bu Gandiaye di suppléante ànd seeg Mamadou Thioune adjoint au maire bu Latmingué ñun kenn candidat yooyu nag ñoo fi nekk euh, wax dëgg yàlla dina remercier bu baax le président Macky Sall ci lim ma investir mais également dinaa remercier maire département bi nga xam ne ñoom ñëpp ci ñu candidature bi jàpp nañ ci euh, ba Macky Sall dëggal ko waaye gannaaw loolu tim ñu ngi remercier euh, communes yi nga xam ne gannaaw bu ñu defee tournée ci quatorze communes yi vraiment maire bu ñu dem euh, ku ci nekk mobiliser nga rassurer nga leen te tey jii mbooloo mi nga xam ne gis nañ ko fii tey wane ne na maire bu ci nekk la nga waxoon def nga ko ñuy remercier aussi le ministre Mohamed Ndiaye Rahma nga xam ne accompagné nañu ci tournée bi yëpp vraiment am si taxawaay bu am solo. Euh, ñu ngi sant aussi équipe municipale bu Kër soose bi nga xam ne tim accompagné nañ ma ak population ba yëpp ak acteurs yi nga xam ne yëpp ñoo ci jàpp parce que tournée bi biñ koy def vraiment alliés yi ñëpp ci nekkoon toutes les personnalités toutes les sensibilités confondues donc ñoom ñëpp ci nekkoon ñu wër quatorze communes yëpp ba tey ji ñu ñëw euh, gis nga mobilisation exceptionnelle bu fi am vraiment ci lii nag ci lañ rafetee njort ne incha allah rabbi bu 18 jotee dinañ am taux boo xam ne macha mosul fi am dinañ am tool boo xam ne yaakaar naa président de la république dina ci kontaan lool ci Kaolack. parce que dañuy wax da nga laaj léegi assemblée nationale euh, ak euh, au conseil des collectivités territoriales ñaar yëpp institution la mais bële day voté loi bii nag moom assemblée consultative la dañu fa nekk di xalaatal président pour di ko jox suñuy avis avis yooyu ñu koy jox wax naa leen léegi ne leen loolu moo taxoon doo leen ñuy dégg ñuy wax parce que nous avons 26 avis au président de la république Nous avons fait un un an rapport déposé ko ci aussi 546 recommandations 548 recommandations def nañ ko ci président té yu bari wacc na ci collectivité territoriale nous gisunu ko xamuñ ñun ci suñ du wax wala liggéey kuy war a jox avis président de la république soo pare da ngay def rapport déposé ko so loolu lañ doon def